sunna moomu ñeenti yëpp ñoo ko def ci julli mooy lu xam ne yonent bi takkoo na ko bu baax te feeñoon na ne dana koy def bu baax waaye na amuñ fuñ dëgg mën a wax ne farata la loolu mooy sunna wa sunnatun ma ahmadun qad waajaba alayhi wa suhuru fihi wajaba aw daama fexluhu al wasfu nafli ndax xam nañ ne moom fonkoon na ko waaye fonkinu naasi la nag la ah gis nañ mu bokk ci lu ah ne fonkoon na ko. julli hmm. ñeent ko ci do hmm. mu laa ne witrun witar ku soofoon ak jullit muuru jant anga doon ak ñaari neen ñi istisqa ak jullit nandalu suna nun ay ko ci do bi ci njëkk mooy witar witar mooy rakk bi nit da mujj julli ci ne nit na ko ba jàng ci alquran waaye masabul imaam Maalik lim tànn mooy gannaaw boo Fatiha nga jàng Ixlaas jàng Falaqi jàng Naasi su ko defee benn la waaye dañoo bëgg nga jiitalal ko ñaari rakk boo salmalee da koo def waaye da ko julli moom kenn rek donte moom kenn mooy sunna bi ñaari rakk yi naasi la lañ dañ koo sib waxtu fi mu dëkk mooy bu ba nga julli gawe goo wit suuf sa ko fàddoogut soo fi jullee gaye doo witar lu mel dafa am guddi gu may taw wala guddi guñ loolu nga di taw ñu julli tamit sax ñu boole gaye ñu julli tamit boole gaye doo julli gaye rek nga buy witar naka noonu buñ ne sa wax fàddu na julli nga gaye waaye gaye gi dafa am lu ci ne ba luñ war a la dole ko a witar te baamu woo sa gaye gi il faut rek maxibu sa fekk mooy am salaatu ne sa un sahiha xam ñu doog a wax ne witar jot na la ko ko dalee soo bañoo na soo ko fi jullee rek baax na lu guddi gën a sore it ñu gën koo soxla soo ko julli wut julli woo ko ba fajar xar nga waaj baa ga seet li des ci sa diggante jant bi cinq gis na nit mën na fee julli juróom ñaari rakk kon da ngay julli ñaari rakkay safa nga julli rakkay witar julli ñaari rakkay fajar dawa julli suba gannaaw jog nga ci sa te li des ci moxtaaram suba si loolu xaj ci nanu ko doxale su fekkee gëddanti gi gën nay diis ba su ak ci moxtaaram suba war a jeexee kon juróomi rakk moo fi kon da julli ñaar rakkay safa nga julli benn bu witar nga julli suba ñaar rakkay fajar nga bàyyi ko bu jant bi yëkkate ko nga fay su fekkee ne julleen ci biir gannaaw biir bu mataaroon suba kenn ñetti rakk rek moo ci def kon da ngay rakka witar nga julli suba safa ak naafila yi nga naan dal di faat ñaar rakka fajar bu jant bi yëkkatee ko nga fay ko. suñ demee ba nga xam ne jant bi fenk na nag yow julli goo suba ah, mën naa witaroon nga wala witaroo kooku moom dëgg dëgg da suba witar moom faat na su ko defee fajar bu jant bi yëkkatee ko nga fay su fekkee ne nag yow koo nga ko fàtte ci guddi nga jël sa ganaar waaj ba àggal nga kàbbar julli suba julli ba sëlmal sa xel dañ ne witaroo woon biig donte waxtu yi na dara itam witar googu moom faat na kenn du ko baamoot kenn du ko fayet su fekkee ci biir julli gi la sa xel dajee ne witaroo te nga de yow kenn gannaaw waxtu wi yaatu na dañoo sopp nga dagg suba gi ndax nga dabaatal witar gi su dee ne dañ la jiite nag hmm. ci bi nga nekkee ci gannaaw imaam nga seetlu ne witaroo hmm. kon imaam dala jéem nga doo sañ a daggee julli gi ci gannaaw imaam hmm. léegi witar bi witar bi moo lay fàtt te lu baax a baax su ko defee sunna la da ko bàyyi ci lu dul ngant baaxut xam ne ndax am sàgganee witar da ko ba ci lu dul ngant jar na fa yar nit ñenn ñi ndax am moom nag tëraluñ ci dara lu ñu tuddee yar waaye xam nañ ne xoyofal sunna la nag te xoyofal sunna danay waral jaamu yàlla guñ nanguwut waaw dana ko day waral de waaw xoyofal sunna danay waral jaamu yàlla guñ nanguwut waxuma la ne ku witarut lam julli ca bis ba nanguwuñ ko loolu waxuma ko di bis bi liñ ci julli li ci yàlla nangu yàlla ko yàlla ko xam affaire nangu waaye wàllu yàlla la dama la nettali rek li borom xam-xam yi wax dama la wax ne la witar sunna bu fade la bàyyi ko ci lu dul ngant xoyofal sunna la ku ne xam na ndax sunna bu fade la te yaa ngi ko ba ci lu kon kay yaa ngi ko xoyofal loolu nag xoyofal sunna danay waral jaamu buñ nangu wut loolu lenn la ci gaafam te itam xoyofal sunna dafay waral diine dootu naw nit dinañ ko baax wax ah, waaw xoolal sunna danay waral diina dootu dana nit ak nit waaw ah, ndax diina nit ku a roy ba pare te waxee ko ko mu leer bu sàgganee roy kooka nag kon ki amut xel liñ ko wax xamul nu mu ko war a jàppee loolu moo tax ñu ne ab jullit nu mu gën a fonkee sunna rek noonu la bi waaye nu mu gën a sàgganee na rek noonu la gën a niroo ba yi moom seetlu la ko ah, xam nga diina da la waxal roy te waxee la ko mu soo ko teggee nag jàllale ko dara keneen wala daaw keneen xanaa li nga wax da nga ko xamut de sëñ waawa xanaa li nga wax ko xamut de wala da ngaa ni mu matafaale te lu ci nekk de loo leer la la loo leer nag xamuloo ko loolu mooy lan ñàkk xel ñàkk tànn lu mu def dëgg la ah loolu moo tax sàgganee sunna bu ko mujj a def hmm. dina ni ko jàppee boo ab bëyima rek waaw te loolu daanaka tanewut bëyima ndax bëyima mooy dund ci ittibaa wal hawaa hmm. te sàgganee sunna bu ko ba def ittibaa wal hawaa rek lay mën a def ndax la moo def dootu tege ci waaw a ah dëgg yi moom mooy bindoo ci ittibaan hawa hmm. te sàggalee sunna bu ko nit defee ittibaan hawa lay mën a def ndax la mooy def tegeetu ko sant tegeetu ko sant hmm. loolu mooy tax sunna dañ koy fonk hmm. waaw dañ koy fonk bu baax a baax a baax ku ñu wax ne mën nañoo jëmale ci yàlla te duñu ko jëmale ci lu mooy sariyatul muhammad yi sunnatul nabi yi day daf ñuy ak kun mën a doy daf ñuy nax waaw lii a baax waaw ku ñu wax ne ñun mën nañoo jëmale ci yàlla te wax ne fam ñoo jaarale bokk tag si yonent bi xàll ne jaar leen rek daf ñooy nax ak kum mën a doon alquran lim ñu wax mooy fa aminu billahi dem leen yàlla wa rasulihi annabiyil ummiyi allati yuminu billahi wa kalimatihi mu ne wattabi'uhu la'allakum tahtadun wattabi'uhu la'allakum tahtadun mu ne topp leen ko ndax ngeen gindeeku te loolu waaw mu ne wattabi'uhu la'allakum tahtadun ha dina ko baax waaw yàlla nag bu kon xam-xam moom mën daa am yàlla nag bu dëgguwut dëggu moom mën daa am gannaaw xam-xam ci moom rek la mën a bawoo te dëggu ci moom rek la mën a bawoo kon boo amee ku wuuteeg moom foofoog ne ko la ma ne boo amee ku wuuteeg moom foofoog ne ko la réer gane xanaa ca ku wuuteeg moom ah boo amee ku wuuteeg moom foofoog ne ko la dëggu xëri gane xanaa ca ku wuuteeg moom mun na lim ñu wax mooy da ngay topp yonent bi da ngeen gindeeku waaw buñ ñu nax waaw buñ ñu nax waaw xam nga lay wax waaw buñ ñu nax waaw waaw na ko man day na wax def na def na benn bi naadu waaw buñ ñu nax waaye buñ ñu nax am na yaakaar ne dañu nax nit ñi rek waaw danañ def pexe ba xoli nit ñi sew ci yow nga def nga leen utiliser def leen ay mbaam loolu loolu loolu loolu pexe yooyu ku ragalul yàlla rek war na ko mën a def ah. <laughs> loolu dundu jëfee leen du dayoo du dara du dayoo du dara ah. dina bu baax a baax su fekkee am na ñàkk kersa gu toll nii sama borom dana gis dana gis dana baax a baax a baax. ngay doxal ci li moom ni muy xaaye man ngaa dem lu su fekkee am nga nag kerte gu toll nii sama borom dina ji suñu waaye heure bu ah, man nga def lu la neex su fekkee am nga nag kerte gu toll nii sama borom li muy waat du la ci gis ah man nga def lu la neex ah dafa nekk test yi daf na maa siita mu ne ko mu ne kerte dama lu ko baax ah waaw nit bu amul kerte mën naa bañ a bañ dara ku bañul dara nag jëndul dara ah xam loolu waaye bu ñu nax waaye bu ñu baax baax waaw fas yéene toppatoo yaram fas yéene topp yàlla loolu mooy li am solo waaw waaye yëngatu bu ñëw jël la yëngatu bu ñëw jël la yëngatu bu ñëw jël la yooyu yooyu waaw bu leen ko nangu xam nga la koy waxee yëngatu bu ñëw rek këf la yëngatu bu rek këf la rek këf loolu bu ko nangu waay waaw moo tax ne witron witar ku sooboon ak jullit muuru jant xeet woon ak ñaari xeen yi istisqa ak jullit nangalu sunna noonu ay sunna lañ fajrun fajar raxibatun lu ñu la xam ne ci julli yi ñuy tuddee raxiba bokk na ci ñaar rakkay fajar bu ñu waxee ne fajar xar na bala nga julli suba foofu koy jàng foofu nga koy julli doog a julli farataal suba bi eh, moom nag fatiha rek lañ ciy jàng na xam ne dañ naan ñaar rakk yi benn bi dañ ciy jàng alam alam nasra eh, beneen bi nga jàng ci alam tara ñu ne man talaati ma alam alam lam yasifu alam xam nañuy wax noonu ñoom ñaar la ci benn bi da nga ciy jàng alam tara ci gannaaw fatiha benn bi alam ci gannaaw fatiha mais mënta laa ci ma alam alam lam yasifu alamun xam ne ñaari saa yu dalay ci alam ku ko jëkk koy jàng métti du ko dal waaye gis nga loolu loolu loolu hadis boobu gaa yi ko defar rek waaye du hadis bu ñu war a sukkandiku ne ñaar rakaa fa yaa loolu rek lañ ci war dëgg la na ci borom xam-xam yi sax ñoo xam ne ñoom nattu nañ loolu ndax te dañoo xam ne foofu la jaay Quran mën na jaay julli ku mel ni Imaamul Xasaali gis ni muy nangu mel ni mu ne xulaayal kaafiruun nga ci jàng benn bi Ixlaas ne wa qad jurriba li wajaayal asnaam xale ko dégg waaye Malik ci demu sunna yi moom nga jàng ci Fatiha su ko defee boo demee diggante ba jant bi fenk su da ngay julli suba bu jant bi yëkkati ko nga fay ko in tama shamsu kama ni yara taqdima subhin wa siwahu akhara waaw in tama yara taqdima subhin wa siwahu akhara xam ne la su fekkee ne yow da ngaa dugg ci jàkka fekk ñu ne xaamal imaam bu boobaa dootu dagan ngay defati ci jàkka ji loo may ànd nga limaan jàkka kenn waru caa nekk ñu ne xaam ca julli farata ngay defati dara ca jàkka ja lu dul rek ànd ca julli bu la fekkee ngay wërda wërda foofa la war a taxaw bu la fekkee nga bëggoon a naafila da nga xam ne mënatoo koo def xanaa nga kàbbar naafila àggale gu la ñu ne xaamal imaam kon de julli nga xas ba kàbbar da nga ko mottali lu mel noonu bu bu amee kon julli farata bu jant bi yëkkatee ko fekk sawal te koy mën a fay nga fay ko ba tax wetu xadaa des na ko fay li sawal ba sawal wal fardu julli farata yëpp xadaa des na ko fay abadan taw julli farata su fekkee nga baax ak ku mën a doon ci julli juróom def ko rek moo la ciy wàcc julli farata gum mën a doon ci julli juróom su ko nit bawee fekk defu ko borom sa ne mu ko koy topp parce que ci tawlanto su fekkee ay julli lañ yëpp la war a fay te itam li seen waxtu tegalee noonu lañ war a tegalee ci fay rek dam njëkkoon a ba moom la war a njëkk a fay teg ca gese tegu te ca gese tegu moom su fekkee tisbaar ak takkusaan nga ba mu ba takkusaan bis bi jiitu ba tisbaar bis bi topp kon it bu fay takkusaan ja lay njëkkee de wala benn bis la mu bàyyi tisbaar ak takkusaan bu fay tisbaar ja lay njëkkee ba maat ba rek. naqan wa tahiyatun duhan tarawihun talat وقبل وتر مثل دور العصر وبعد مغرب وبعد ظهر ñu la doon jàngal julli jàngal nañ la liggéey la fardu fardu aynin maanaam ñu la doon jàngal xeetu julli yi wax nañ la ci fardu aynin juróom la ñu jàngal luy ci fardu kifaaya benn la jàngal la yéen cee tuddee sunna muy ñeent jàngal la li ñuy tuddee raxiba muy benn fajar waxoon naa la fardu aynin mooy lan fardu kifaaya mooy lan sunna mooy lan raxiba mu def naafila naafila mooy li nga xam ne bu ko nit te yàlla tax dana ci am tiyaaba su ko bàyyee du dara dañ ko bañ daan teg ci sunna ko waa ca donc dañ daan toog ra raxiba koo xamu ca loolu mooy naafila wan naf ah tënk yi daan tënk ci sunna ak dafa tënk ci raxiba ci gannaaw wuñ doole lépp xam ne su ko nit defee te yàlla tax dana ci am ci yaabe naa doo ko tënk ci naafila balaa mu di ba soppeeku naflu naafila mutlaqan di lu ñu bayal waxtu wële rek baax nay naafila soo ci jullee te yàlla tax dañ ci am ci yaabe soo ci bañ a julli du la rek baax nay naafila su ma waxtu yu néew rek yoo xam ne dañ ko setti te mooy diggante takkusaan ak timis wala boog tey boo jullee suba maanaam fajar xare lu muy ñaar rakka fajar ak gannaaw boo jullee suba foofu ba jant bi yëkkate ko su ma waxee foofu nag abilimaani jumaa bu taxawee ci mimbar bay xutba foofu itam di waxtu naafila su ko mayee nag fële la waxtu naafila la muy la ne yiñ sopp yiñ seddalee seen sopp muy peut-être seddalee na taxiyatun nuyu borom jàkk bokk na ci sopp nag te sedd li sopp ga tahiyatul masjid yi mooy boo duggee ci waxtu dagana naafila balaa nga jékki nga julli ñaar rakk ndax am boo jékkee it mën nga jóg dabaatal ko su ko defee bu dul waxtu dagana naafila doon naafila waaye da subhanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allahu wallahu akbar ñeenti yoon nga taxaw taxawaay ñaar rakk naafila yi doon ak naafila yor-yor bokk na ci ñu sopp te feddalu sopp gi naafila yor-yor buñ xëyee ba jant bi yëkkateeku ñu ne naafila dagan na la ko fa dalee sël sawal mooy yor-yor kooku def naafila gi rek baax na su ko defee li ci gën a tuuti mooy ñaar rakk man nga def ñaar rakk rek yemale ko ci li ci a bëri mooy juróom-ñetti rakk yaa ngi def ñaar rakk yoo am sëlmal fi mu ne ko romb li ci gën a digg doomu mooy juróom benn rakk séddale wu ñu borom sa ñaari la waaye du séddale wu ñu fii war kat dégg nga soo def ñaar mbaa nga def ñeent mbaa nga def juróom benn mbaa ko defee ñenn ñi da te sayaat xàggut nangam mën na waral nangam ak nangam wala boo ko tàmbalee ba ca ko mën na waral nangam ak nangam waaye nit ñi dañ ko wax waaye lii dëgg nag mooy li la ci wax naa fi la laaj soo ko defee te yàlla tax dañ ci am tiyaabo soo ko baaxee daje du la yàlla benn mbugal xanaa tiyaabo daf di nga dul am rek. te lu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ni mu daan jàngalee ci wax ñuy dégg noonu la daan jàngalee ci def ñuy gis luñ gis muy def ci diina danaa xamul benn tegtal ne ci moom lañ te lu baax a baax naafila weeru ni mu ko daan defee mooy hmm. dal ci daan nekk bañ foog ne du ko baati hmm. mu dellu ko ba bañ foog ne du ko tàmbaliwaat hmm. mu dellu ko tàmbaliwaat noonu la ko daan defee fekk jàngale la rek pour ne jullit ñi xam ne su ko nit defee te yàlla tax dana ci am tiyaaba waaye nag bu ko nit bàyyi nag bu ko taxawee benn mbugal ndax mën naa bu ko tokkoo woon ba ko dañ foogee ci tokkoo gi ne farata la su ko boowoon dellu wutti dañ foogee ci baju ne bokkatu ci diine waaye gannaaw ko bay maa ka def nag dañ xam ne ci diina la bokk waaye du farata nag mu nekk jàngale bu leer a leer léegi nag yonente bi bu jàngale ba mu leer ba amee keneen ku wax la ne ni tam wala yonente bi rek mooy dëgg waaw xam nga la ko waxee waaw bu jàngale mu leer dëgg waaw rajo yi moom naa fi la weeru koor wala topp na ci bokk na ci soppate seetlu sopp ji naa fi la weeru koor wa qabla witrin ak di njëkk witar ak rakka witar ba lañ koy julli ñaar rakkaay safa yu koy jiitu yooyu naafila yi amul bokk ci yiñ sapp yiñ soddale seen a sapp witar benn rakka lay dox waaye da ko def te jiitaloo ñaar rakkaay safa dañ koo sib nit la doorin kenn tisibaar da nga doon tisibaar boo ko waajalee ba àggal dañoo sopp lool te soddale dañoo sopp te soddale sapp gi nga naafila bala ngaa def farata bi naafila ñeenti rakk ñaar rakk yaa am sëlmal wala wa baada maxribin ak gannaaw timis ak boo julee timis ba àggal foofu itam sopp nañ ko naafila te seddli nañ sopp gi su ko defee foofu nag bëgg nañ sax nga yokk nag dem ba juróom benn rakk ñaar rakk yoo am sëlmal ndax dafa ñëw ci hadis mu ne nit su julee timis ba àggal te ci juróom benn rakk naafila te diggante timis gi naafila yi waxut ci loo haram dafay am tiyaabooy te fukki at ñaar da jaamu yàlla loolu nag yow mën nga ko te li mooy jëriñ boo demee ba àllaaxira da nga ko ba àllaaxira loo ko yóbbu da nga ko jëriñoo xamu dàpp su ko defee nag dafay bokk ci ñaw nag jëfandikoo sakkanal ci wàllu diine yi nga xam ne yomb na te ñu ngi koy yaakaar te yaa ngi ju rëy nga ne cee dina dafa gàtt man mënul nit néew te àllaaxira amul àpp ne la ko waxee ndax nekk dina dafa gàtt te man mën ak nit te àllaaxira amul xat subaana doon li ngay liggéey ci sa diina nga ne dàkk moom sa ji foofu la ko yóbbu rek da nga ko soxla ah da nga ko soxla loolu moo tax nit yàlla yi lu bëree bëree bëri mën nañ ko muñ ci wàllu àddina waaye wàllu àllaaxira mënuñ ci ah. a baax ah lu bëree bëri mën nañ ko muñ ci dara na alaxira mënuñ caa may kenn dara dina ko baax a baax su ko defee wàllu alaxira xamul jotee kenn dara ah yow yaa ngi julli kii lay julli xamul jotee kenn dara gannaaw fa ngeen bokk fa ngeen bokk bëgg yàlla rek amul jotee kenn dara ah du jotale kenn kenn waaye àddina àddina rek mooy jotale kenn kenn. waaye daal loolu jar na xam daal ne ñëw la daal bokk na ci ñëw daal so dina loolu yee yaakaar te bu réeréer yi loo ci man rek nga dajee feeg léeg-léeg ndax ne tawaat lool te àllaaxira amul xàpp te man mënu nit néew na dana dem jàkka yi dina julli mbooloo ci la moo ko tuyaaba julli kenn lool de moo ko lool de ah dana dem jàkka yi dana ko julli mbooloo yi ah ci la bokk rek moo ko tuyaaba julli kenn lool de lool sax nag ah lool sax dina ko ëppee ah. loolu moom da nekk tawaat dina lool gàtt la te nit itam ko néew man la. te àllaaxira duut fa am xàpp loolu ko jëriñoo kon daal sa diine nag nga xam ne moo gën a sakkan ci lañ yaakaar ci lañ gën a yaakaar te yaa wuyu rëy mën na tànga am dund bu sakkan waaw rubba umrin qalilin amaduhu muttasihin imdaduhu xam ne dit bu gàtt la am waaye ah la koy def rek mooy borom da koy caaxaanee am dundam dégg nga. ba de góor ak gannaaw tisbaar mooy itam sopp nañ ci naafila moo tax ba de maa ibna gannaaw tisbaar ba de ba de góor ak gannaaw tisbaar julli jàng nañ farataay julli ak i sartaam ñu jàng sunnay julli ak ñu doon ay xeet ñu jàng mandubaatu salaa ak makruhaatu salaa ñu jàngal la julli la cay fardu ayn la cay fardu kifaaya la cay sunna la cay naafila jàngal la affaire fay léegi nag nit danay julli ba ca kanam mu jamaj mooy yoonu julli wun du dafa xamut mu yooyu jullee waaye xel mooy xubbeeku wut nag xubbeeku gum mën a jëfee xam-xam bi loolu mooy fawu lii du dañ koo xamatut waaye sa xel mooy xubbeeku wut nag xubbeeku goojanoo yeeg moom comme ni nga ko xamee ba jëfandikoo bokkul ak nisiyaan nisiyaan dara loo xamoon xamatoo ko loolu moo tax nisiyaan borom dañ koy waxalaat ci la mën naa eh, ci tan bi bu gën a xeet bu gën subhanallah xam nga du waxal nit ki ni ñuy jullee seen loolu xam nga nit ñi ñooy jullee waaye nit ko ñoo waxee ne xam nañ daf duubu moo lay xamal ne kon xam-xam bi demut bu demoon ba aaj ne xamalaat ko waaw waaw sabaanu maa wa ni ma kon nisiyaanu mu ne xam xamatoo mooy waneen ma ci sawee la te naanu xam-xam muy teel wut ci la sawee day amee waaw loolu nag léeg-léeg dafay gaar jullikat ba mu mooy yoonu julliwin wàññi lu bokk wala boog indi lu wala ñaar yëpp daw ko su boobaa loolu ñu ngi koy jagalee moom la lay jàngal mu ngi bokk ci gën a wutteel ndax dañoo wax ne julli ko moo gën julli gi nga ba jamono ci seetaane rek lay bawoo li muy bëgg nag mooy fooyoo sa xel mi loo xam ne yàqut sa julli su ko defee nga di julliwaat mu yem nga ci def luy santaane wut wala fooyoo sa xel ba sa julli yàqu nga foog ne def nga lu doy nga daal di toog mu yem nga ci bali la sant loolu lay bëgg su fekkee ne nag xam nga mbiru jamono nag yow soo jamono jee mu wóor la jamono bi yàqut julli gi nangam lañ ci santaane. da ngay def li ñu santaane rek mu jeex lan bëggoon te mooy nga def li ñu sant loolu du ko am day torox rek su jafe ba àggee xam nga ne li nga def nii kontatut da ngay dafa ko nga julli lan bëggoon te nga bàyyi te mooy nga bàyyi li ñu la farataal loolu du ko am waa day torox kon julli boo ci jafe nga toroxal ci sa maanaam julli boo jafe jooy dabar ko toroxal nga ci saytaane suñ ko nangoo da nga am julli suñ nangoo toroxal saytaane gi da nga am julli ak toroxal saytaane su fekkee nangu woon julli gi am nga tarawa saytaane bu dul tiyaabo itam ndam la boo ko daan julli gi nga xam ne julli rek la xëy na sax daa waaye bu ànd ak leneen nag ci la ëpp kooku buñ ko nangoo da nga am tiyaabo julli waaye moom nga moom nga am leneen bu ci tegu suñ ko nangu woon nag nangu wuñ ko rek bu ci kon moo tax lu muy teel la fàttali ne aji fasala ji wax qabla salaami ci njëkk sëlmal li naqasi sunnatin ngir wàññi benn sunna sawan ci jawaj aw sunanin wala ay sunna in ukkidat ndigam fedd lees na leen waa ndigam fedd lees na ko soo dee julli nga wàññi ab bu fade ni ki taaya nga wàññi wala saar wala ay sunna yu fade ni ki ñaar allahu akbar nga wàññi dañoo sunnaal nga jangee ko sujjóodu qabla salaam mooy da ngay julli ba sëlmal rek dese la nga sujjoot ñaari sujjoot dellu taaya door a wax assalaamu aleykum moo tax yu sann def na sunnaal li naqasi sunnatin ngir wàññi benn sunna saywan ci jamaj aw sunanin wala wàññi ay sunna xëj na taane ñaari sujjoot qabla salaami ci njëkk sëlmal inu kinat ndigam fedd lees li muy ci jamaj wàññi dama ku dolli na mu saywan ci jamaj su fekkee da ngay nga jamaj dolli kon julli gi ñeenti raak ñeenti raak la war a doon nga jëm def ko juróom wala ñett la a doon nga jëm def ko ñeent wala raak bi jëm nga jàng ci Faatiha ñaari yoon wala rukkoo nga ci ñaari yoon wala sujjóot nga ci ñetti yoon loolu bu sa nit defee sajada na nga sujjóot ba du gannaaw mu sëlmali kasaa naka noonu kooku da ngay def sujjóot bu xam ne gannaaw boo sëlmalee lay def waaye day nekk ñaari sujjóot comme sujjóot ba daan jib sëlmal rek kon da ngay julli ba sëlmal nga def ñaari sujjóot waxalit na nga natal a naqasa wala wàññi in warada borotee ànd ak yokk su fekkee da ngaa jamaj ñaari jamaj lii dolli la lii wàññi la du tàññi dana teg ñaari sujjoot benn sujjoot day su baana dañoo jël wàllug wàññi gi ñu natal ko ci wàllug dolli gi boo defee sujjootu xamle salaam dana day te daal timis ngay julli rakk bu njëkk dañ ci fàtte woon saar waaye jum nga ko ñeenti rakk su fekkoon wàññi saar gi rek la sujoodu qabla salaam moo lay war su fekkoon def gi ñeenti rakk rek la sujoodu ba'da salaam moo lay war ñaari sujood yi nag doo ko toggoo kon da ngay nekkal yàlla wàññi gi boo defee sujoodu qabla salaam dana doy. dama ko baax a baax kon ñu jàng loolu li nga xam ne waxtadrikil qabliya maa qurbi salaam waxtadrikil baadi walaw min baadihaam am muqtadin yaxmiluhaa bayna al imaam wa batalat bihamdi nafxin aw kalaam li gayri islaahin wa bil musili an qaddil wa fi lwaqti ayat idayusan wa hadasin wa sawi saydil misli qaqahatin wa amdi surbin akli léeg-léeg da ngay julli nga jam ak wàññi waaye sujjoor sujjooru xam salaam fàtte ko ba sëlmal wala nga julli jam ak dolli waaye sujjoor sujjooru ban de salaam fàtte ko ci gannaaw boo sëlmalee su fàttale ko amee nooy def moom lay jàngal mu waxta bi na nga dabaatal alqabliya sujjoor day ko jóg qabla maa qurbi salaami ànd ak jóge nekk sëlmal bu fekkee da ngaa fàtte sujoodu qabla salaam ba sëlmal waaye teel nga koo fàttaliku yàgg gut jógee boo fi mu doon jullee kon mën nga ko dabaatal rek lamma qaraba shay'a yu'ta hukmahu jóge mbir danay tax nga jël àtteem dana yaa ngi ci tegg julli mën na tax nga mën a jëfandikoo yenn mbir yu dëkk ci biir julli dégg waaye su yàggee nag day dabaatal subhaana luy àtteem dañ ko jàng insha allah waxta dañ na nga dabaatal albaadiya su jot lay ko jóg baada wala min baadi amin donte ci gannaaw at la su fekkee da ngay julli nga jëme dolli waroon def sujoodu baada salaam fàtte ko sol mel heure bu ko saqal dajee donte daaw la woon wala looroon ba daaw waaye yàgg na lool bu teere da ngay jàpp nga dem dabaatal sujoodu baada salaam bi soo jàppee ba àggal boo koy dabaatal da ngay taxaw armal boo armalee nga toog dana def ñaari sujjóot yi dana taaya sëlmal ba nu koy dawaatale armal boobu soo ko fàttee ndax da ngaa dikk rek nga toog def ñaari sujjóot yi kon itam dana kon armal fan lañ ko bàyyee te lañ doon def wër ah mu san dégg wax na ne waxta rek na nga dabaatal al qabliya sujjóot lay ko waxtasi na nga dabaatal albaadiya sujjoot bay ko ñu baada wala ñu baada amen donte ci gannaaw at la li ñu wax nag limaan moo ko moom wala kenn waaye maa moom moomu ko moo tax ne yaxmilu dana xenu al imaamu limaan xaatee yi la ñaar mooy li war a sujjoot qabla wala sujjoot baada am muxtadin wala aji raw yow su fekkee fañ la jiite jamono bi nga ànd ak imaam jamañ nga nga dolli wala nga jamañ nga wàññi suba imaam bi nga àndat moo lay xelal loolu moo tax kenn la si jot loolu waaye suñ la jiitee nga daal di jamaj te yaa ngi ànd ak imaam imaam bi nga àndat mooy la si jot loolu dafa am mbir yoo xam ne nag soo dee julli lenn gaar la ci sa julli ga day yàqu lu yàqu mooy luñ la mu doon def mu compté julli il faut julli aat wala dafa batal ak yàqoon a julli bi am naf xin ci tawi wal da julli da tawi ëf ku ko def jullim day yàqu aw kalaamin wala tawi wax wala da julli da tawi wax ku ko def jullim day yàqu su ko defee wax nag bu ñu ko waxee ci fiq mooy lépp loo xam ne génne na arab mooy lu baatu te mën koo génn rek wax la ci fiq lu mel ni aa lu may gàtt gàtt noonu wax la ci fiq de waaw dafaa yàq julli de <laughs> waaw lépp lu baatu te mën am na maana xamul maana man na kalaab munul kalaab matul kalaab waaye lu mën a xew baatu na mën nañ ko bind rek kalaab lañ koy wax ci fiq soo julli nga def ko te yaa ko fay sa julli da yàqu xam nga ni ma la ko wax baax yow nga dégg yenn fasin yoo xam ne daanaka moom wax benn na nga dégg yenn fasin yoo xam ne kii julli waru ko def waay danay batalet na julli bi na di nafsin ci tayiwal aw kalaamin wala tayi wax li xeyri islaahin ci lu dul xéwénal julli su dut wax jën tayi xéwénal julli gi moo tax kon loolu mën na koo te yàqu waaye ci ay sarta na lay ba ilimaan su fekkee dafa jëme sëlmal waaye jëme ju nu mën a demee gannaaw ilimaan sëlmalut li mu jàpp mooy mu ngi ci julli ba léegi kenn war da te itam moom imaam bi muy salmal ci kaw wóolu ne julli wala àggut bu salmalee julli gi day yàq tam demee loo xam ne wax mënu wax rek moo ko mën a sottal ah tam demee loo xam wax rek moo ko mën a sottal te fi mu mënu koo sottal te lu baax a te li mu war a bëriwut ñeenti sart yooyu bu dajoo kan lañ defaale woon yàquwut dañ mën a jóg mottali li ci des waaw àggala ba imaam sëlmal na li jàppoon na ne na mu tëddee noo xam ne itam tëfin mënu koo sottal nga wax ak moom lu mu xamee ne def na te wax ji bëriwut kon la la yàlla woon yàquwut mën na jóg kabar pour ñu mottali li des selung baax lu tuuti nag mooy kenn juróomi kaddu jëm suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lu dafa mos a jullim am ku ñuy wax dul ya day ni ne ko ndax julli gi dañ koy wàññi xematut nam daan xem wala dañ koy fàtte dara ak loolu benn la yonent bi ne ko lenn ci amut de kafru moom amut nisiyaan amut sowu moo moo tax wax naa la nisiyaan sowu bokkuñ ah wax naa la ko muy ñaar mu ne ko ah xam na lu ci am de mooy julli woonu toll ne nag mu laaj ni ñooy ndax noonu la demee muy ñeent ñu ne ko waaw muy juróom mu jóg mottali la ca def waaw mottali la ca def wax dana yàqoo julli bil musxali caaji soxlaal en pardin walit farata maanaam nit buy julli dañoo bëgg mu tàggoog lépp lu koy soxlaal ci biir julli gi ba bu ci julli gi julli gi rek da soxla loola nag bokk na ci diis diis ak yaramam mooy nit ko xam ne dafa am soxla ci wanag dañoo bëgg soobu ci julli mu dem faj soxla boobu ba nga xam ne buy julli yaramam dana xoyof xelam du nekk ci lu dul jullim su fekkee ne loolu dafa bàyyi diis diis boobu ci yaramam dal di sóobu ci julli bàyyi xel ne day jànkuwanteeg diis diis boobu boole ko jullim bu ko diis diis bi soxlaalee même bàyyi benn farata ci julli ga rek duñ ko ngantalee dabaatoo ko yaa mooy julli ga da yàqu mu daa am na rakam boo xam ne ca xam na rakam boo xam ne daanaka ca Fatiha xam na si jot boo xam ne daanaka defu ko loolu loolu muy jànkuwante mu diisal yaramam loolu day tax rek ñu war a julliwaat julli ko day yàqu du mën a wér waaye it na nga baax fil waxtu ci waxtu dinaa nga sën ndegam def na ko sunnaal su fekkee loolu muy jàng ko ante ne sunna na ko tax a baax da nga taayee wut de léeg moom wala indi ko saar de léeg moom kon dañoo bëgg mu baax ci waxtu. wa dana yàqoo julli bu mu soxla caaji soxlaal an far den wala farata waaye it na nga baax fil waxtu ci waxtu dinaa nga sën ndegam def na ko sunnaal waa de seen ak tëj mu ngi dem day yàq julli. benn fa gaaroon ñu fàtte ko fàttalikoo ko ci biir julli gi julli gi ñu ko fàttalikoon day yàqu wala ci biir julli gi la gañee nit ki dal di ko fi dal julli gi moom day yàqu wa sawri sawril misli ak jamaj benn cam julli boo tawee nga doon ci lu ni moom julli ga day yàqu li farata ak naafila ñoo ci am julli boo tawee nga doon ci lim bi ko sëriñ bi xamale maanaam boo jamajee la wax julli boo ci dollee lu toll ni moom donte ci jamaj la kenn du la ngantal sa julli day yàqu loolu nag farata ak naafila ñoo ci am julli suba soo ko defee ñeenti rakk sa julli day yàqu tisbaar wala takkusaan wala gawe koo ci def juróom-ñetti rakk donte njuumte la dafa yàqu timis boo ko defee jëndal rakk mbaa lu ko ëpp dafa yàqu lu mel ni julli boo xam ne nag ñeenti rakk la daan dox waaye waaye yooyu waaye ki war a wàññi war koo def ñeenti raak ñaar raak mi ngi tisbaar tisbaar wàññi yow ñaar raak la war a doo am ñaar raak noo gaar la nga kàbbar xiine wàññi dal de jamay def ñeenti raak danaa tawu na ko kooku moom da nga da nga def sujjóot ba'da salaam dana ca doy dana ca doy dana ca doy soo yéenee wàññi nga taw yi matal dafa yàqu ndax li li yéene li nga def bokkul soo yéenee ñi nga tawee matal dafay yàqu ndax li nga yéene ñi nga def bokkuñ waaw bokkuñ bokkuñ julli ga ñaar rakka rek ci la ko daan xemale ñaar rakka fajar ñaar rakka rek ci la ko daan xemale salaatul kusuufi ñaar rakka rek ci la ko daan xemale salaatul istisqa ñaar rakka rek ci la ko daan xemale yii boo ko def ñeenti rakka rek du wér da yàqu waaw waaw bu dee julli boo xam ne ci ñaari rakk waaye mën na koo romb nag def ko ñeenti rakk du ko tax a yàqu lu mel ne naafila yooyu mën naa yem ci ñaari rakk waaye na na koo romb dawul ñeent mbaa dawul juróom-benn mbaa dawul juróom-ñett yow boo amee ñaari rakk nga taxaw fàtteel sëlmal def dem ci rakk bu ñetteel foo ko teel a fàttaleku da ngay def si nga sëlmal def si jooju boo defee la su fekkee yéen nga koy fàttaleku dem nga ba rakk ba fasu wala jël nga jàng lu gudd ko boobu da ngaa doon beneen rakk rek. su ko defee muy ñeenti rakk dana si jot qabla salaam wayen sa wan sajada waaw ah. su fekkee dafa xéene dafa xéene dafa xéene dafa nekk musaafir xéene wàññi dal di jamañ matal kon day def si joodu ba de salaam ñenn ñaari weer sopp mu baamu ci waxtu même loolu bu xéene maan yow mu ko rey sax sopp nañ nga baamu ci waxtu waaw nii rek la demee su fekkee bu ci jamañ ndax ila doon wax suñ ko baax wax mu ak tëj dafa yàq julli wa soowe soodin musli ak jamaj dolli can xawxawaten ak rajo baat ba julli daree moo xam njumte ko waral tawee ko waral yëpp ci am da yàq julli julli yaa ne luñ ci dara lu kaatoo kon nekk ca deree foo ko la te dina du yëgu ko waan di surbe ak tayu naan ak leen ak tayu lekk yëpp dafa yàq sajdatin xayin wa digri fardi aqalla min sittin ka digri lbaadi wa xoote qablihin salaasi sunani bi fasli masjidin ka tuuli zamani wa tariki rukna fa in xaala rukoo fa alqi daata sahwi wal binaayatoo كفين لمن سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم kon ñu jàng lool ñu doon jàng yi yàq julli ñu dellu ci weyaat wasay doteen ak tay dolli benn sujjóot julli boo ga nga dolli ci benn sujjóot rek julli nga day yàqu wala nga tay nga dolli ci benn jotaay wala nga tay nga dolli ci benn rukon wala nga tay nga dolli ci benn taxawaay lépp lu xam ne farata la tey jëf boo tayee nga dolli ko ci julli julli nga dafa yàqu su fekkee fa def farata tey wax nag hmm. nga tey nga dolli ko ci julli mi ngi day nga di jàng benn rak hmm. nga tey ko ñaari yoon hmm. kon am nañu liñ gis mooy julli ga day yàqu ñenn ñi gis nañ ne du yàqu na fatiha boobu nga baamu ak siikar la donte dëkku fi te siikar war da yàq julli waaye nag dugal siikar fu mu dëkkutin nag a baaxut de baaxut de de baaxut moom waaw xëyin ak ay wacc moom itam day yàq julli wa dégre fardin ak fàttaleku farata aqalla yu gën a néew min sittin juróom benni julli naka noonu soobu ci julli fàttaleku julli farata goo julleegut wala ay julli farata yoo julleegut gannaaw àggut ci juróom benni julli kon gi nga ne woon day yàqu dafay war nga fay nga ba dara julli giñ toll ci waxtum yow soobu nga ci tisibaar sa xel dañ ne julli wala woon suba tisibaar gi dafay dagg da ngay dagg tisibaar gi wératut da ngay dem suba jakk wala soobu nga ci tisbaar sa xel dañu démb ca a julli julli wala timis julli wala gaye xëy la julli suba tisbaar gii nga soobu dafa yàq fokk rek nga dem julli ci timis si biig ak gaye bi ak suba si tey door a mën a julli tisbaar tey sooy ba waxtu tisbaar xat nag ba boo dalee ci yooya bala nga yàgg si mu jeex du ci dara moo tax mu ne aqal la lu gën a néew mi si tin juróom benn julli ka duril baax di ni ki fàttaleku lenn julli ci biir julli soo ko defee gi nga nekkoon ni day yàqu yow da ngaa war a boole tisbaar ak takkusaan nga julli tisbaar xam ñaar rakk sëlmal te ñeenti rakk nag la war a dox bi nga sëlmalee kabar tisbaar gi rek takkal leen yow nag kabar takkusaan gi rek takkal leen yow nag takkusaan tisbaar nga àggagutoon yaa mooy takkusaan gi day yokku su fekkee soreegutoon foofu nga koy daggee su fekkee sori woon na comme am nga ci rakk da nga cee dolli beneen rakk soppi ko naafila boo sëlmalee julli tisbaar dooga dem julli ji takkusaan xamuñu ma la ko waxee. moo tax nag kadibel baadi ni ki fàttaleku julli ci julli da ngaa soobu ci julli fàttaleku lu bokk ah, ca ga nga bawoo kon gi nga soobu moom day yàqu. ba foote xabli salaati sunani ak faat ak sujoodu xabla salaam bu amee ci ñetti sunna yow da ngaa bàyyi ci julli gi lu man ñetti sunna waroon leen defal sujoodu xabla salaam fàtte sujood bi ba sëlmal yéex koo fàttaleku ba mu wéyee dabaatal. kon julli ga day yàqu ndax li ci manqué dafa bëri te dara jamu ko war nga ko te xable yéen ak faatak sujoodu xabla salaati sunna nin bu salaam boo xam ne li tax ñu sant la ko mooy bàyyi nga ci julli gi lu mat ñetti sunna day yàq julli faat dana amee bi fas li masjidin ci tàggaloog jàkka ka tooli zamani ni ki àgg ak jamono sujoodu xabla salaam nag lu koy tax a faat mooy jàkka je nga doon jullee jama joon wàññi wala def sujoodu qabla salaam sëlmal dem nga ba jógee kon yàgg na wéenee dabaatal wala jógee xula fi waaye yàgg nga fi nag dan ko waaw ñu dellu wayaat mu ne wastadrik na nga dabaatal a rukk na ponk saa sooy julli nga romb farata bu ko sakkal dajee da nga arrière julli gi ba fa nga bàyyi woon farata bi nga dabaatal ko yow da nga alma rek nga tàmbalee ci saar fàtte fatiha gannaaw sa xel dañ na ko dangay mel ni too armalees rek nga jàng fatiha jàngal saar wala yow dangaa jàng fatiha saar ba àggal nga waroon a rek fàtte dal di sujjooti su ko sa xel dajee dangay siggi ba taxaw mel ni kuy door a àggal jàng nga rukkoon doog a sujjoot gis nga baax a baax wala dangaa am benn sujjoot waroon a def sujjoot waroon a toog def bu ñaareel nga fàtte rek jot jëm ci beneen rakk bu ko sa dajee dangay àgg suuf nga toog boo toogee ba àggal def sujjoot bu ñaareel doog a mën noonu la demee lépp luñ ne farata la ci julli mm. nga fàtte fa nga ko waroon a defee mm. sa xel daj ko ci biir julli gi mm. danga nga julli gi ba fa nga bàyyee woon farata bi lu la waxta rek na waxta rek na nga dabaatal a rukk na ponk bayin xaala bu ko diggalee rukkoon ko faal na nga wàcce daa ta sawi rakk bay borom jamaj su fekkee yow fi nga fàttee farata bi ak fi nga ko fàttale ko lu ma rakk jaar na fi kon day wéyee dabaatal waaye rakk bi nga bàyyee farata bi mën nga dul compter ni ci la bokk yow da ngay julli sa rakk bu njëkk ci nga fàtte ab sujjoot benn yoon nga ci sujjoot waaye seetlu wala ko nag jàng nga fàtte ak saar ba mu pare nga indi aat beneen rakk muy bu ñaareel nga toog taaye ba àggal jóg jëm ci rakk bu ñetteel bi foofu la la sa xel rakk bu njëkk ba kat yàqu na fi mu ne fi nga bàyyee sujjoot bi ak fi nga ko fàttale ko ab rakk bu sotti moo fi jaar sujjoot boobu wéy nuy dabaatal rakk boobu nga compté woon ne ab rakk la ci julli gi moom nga dul compté ti a doon ñetteel looy def ci wàllu sujjoot insha ko jàng moo tax ne wasal rek na nga dabaatal ak rukk na ponk fa in xaala bu ko diggalee rukkon rukkon faal xi na nga wàcc daata sëwi rakk bay borom jamaj wal binaa wa jokkee ton dana mu topp su paree nga julli rakaatul binaa insha allah dañ ci dem dañ ko bala da danañ mot li ci def balaa buntu bay jeex maa ngi def carte bi te fi man ni ki ko koo xam ne sallama sëlmal na te julli matul mu ngi mel ni yow moo sëlmal si àggala da ngay mu ngi mel ni yow moo te sa julli àggut da ngay dabaatal li des rek te finale man ni ki jógi koo xam ne sallama sëlmal la te julli matut lakin li fi nekk yoxrimu dana mu xarmalal mm. lil baaqi ñaan la des mm. dafay xarmal pour mottali la des mm. yow da ngay julli tamit nga am ñaar ràkk toog taye waroon jóg jëm ci ràkk bu ñetteel fàtte sëlmal da ngay xarmal nga mottali ràkk bi la dese wala ci sibaar nga doon julli nga am ñetti ràkk jàpp ne am nga ñeent nga toog taye sëlmal ndeke am na ràkk da ngay armal dangay ngay jóg nga armal nga mot li ràkk bi la defe ak foo mën a sëlmalee ci julli te àggaloo rek nii mooy àtte bi gannaaw teel a fàttale ko am na ci def ci wàllu sujjoot dana leer ci kanam incha allah wa toolu yàgg nag mulsimul aji waral la mu alfasada yàqub julli su ke yow su sel sëlmalee ak su nga seetloo ne àggale ko yàgg na kon julli ga day yàqu yow da ngaa sëlmal ba ca kanam nga doog a seel naa yow kan kon ba dootoo ko dabaatal da ngay armal nga julli كثير من بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفات سورة فالقبل كذاكر الوسطى وليدي قرفا ورتبا لا قول ذا لكن رجع kon ñu jàng loolu nga bàyyi ca xel nag li ma lay wax na nga ko bàyyi xel bu baax mu ne man sakka position na mu fiiru kunin ci ponk banaa jokkat na mu halal yaqini ci wóolum mu ne saa soo julli nga def fikk farata sàngam def naa ko defuma ko dangay natt la ne defula ko nga defaat ko ak ponk booy fikk indi nga ko indi fuloo ko rek jàppal ci li nga wóolu lu tax mooy farataal giñ farataal ci yow julli yëfi wóolu la ponk julli bokk giñ bokk ci julli luñ xoolu la su boobaa nag luñ santaane mu wóor la luñ xoolu la fañ ko la mënuñ caa doyle def gu ñëw sikk xam na xamut ah def gu ñëw sikk man da wàcce kenn ci war mu xam ne war gam ko def gu ñëw sikk man da wàcce kenn ci mbir moo xam ne war gam ko war luñ xoolu la al yaqiinu la yurfa'u bi shakk xane da la dégg nga waaw loo xam ne def gu ñëw sikk man da wàcce kenn ci loo xam ne war gam ko war luñ hóolu la te wax dëgg yàlla ponk bu mu mën a doon bokk gën bokk ci julli gi luñ hóolu la kon ba duñ doyloo nag nga di sikk def nga ponk bi wala defuloo ko noppalu rek gannaaw sikk bi kon yow boo doon julli nga di sikk rakk bi jàng nga fatiha wala jàngoo ci fatiha da nga nekk la ne jàng góoram fatiha nga dal da ko jàng ci gannaaw boo sikkee waaye da ngay sikk benn yoon nga sujjoot wala ñaar da ngay natt ne benn yoon nga sujjoot nga def jotaay dellu sujjootaat wala nga def sikk boog yow ñetti rakk nga am te kon bii ñeenteel la wala yow koy nga am mooy ñaar rakk te kon bii ñetteel kon li nga loolu mooy xam nga ñaar rakk yoo wa jàppal ci loolu rakk bi ngay sikk ñetteel la ak ñeenteel la nga jàppee ko comme ñetteel nii la dégg nga mboolem arkaanu salaati bokk giñ bokk ci julli yaqini yu waa def gu ñuy sikk mënuñ ko caa doyloo comme ni ma la ko waxee al yaqiinu la yurfaa bi sotti moo tax ne man sakka ku sikk na mu fii ruknin ci ponk banaa jokkat na mu alal yaqiini ci róolum seen téere li ñuy bind mooy wal yasjudil baadiya lakin qad yabin waaye ñun liñ daan jàng mooy wal yasjudul baadiya lakin qad yabin loolu lañ daan jàng nga dama baax a baax parce ñu ko daan jàng loolu la sëriñ bi daan wax ñun loolu lañ daan jàng nga ne welees ju nañu sujjoot ñoom ñii albadiya sujjoot lay fajug banda ki nga xam ne dafa bàyyi tonk daba tal ko sujjootu banda salaam moo ko war yow da kabar nga jàng fatiha ak saar buur sujjooti sakkal dañ ne rukkon wala nga siggi taxaw temm dal di rukkon doog sujjóotu ba de salaam moo lay war ndax loola nga defoon jógee ko ci dabaata rukon bi ndollal la lu xam ne moo ko waral su fekkee da nga bàyyi ponk di dama dem barak bu fasu jaar ci nga dabaatal ko kooku itam sujjóotu ba de salaam dana ciy war nit ndax loolu faaw mu am dolli benn muy dolli kese su waa dana lay sujjóotu ba de salaam wala muy dolli ak wàññi dana lay sujjóotu qabla salaam wala yow da ngaa sëlmal te sa julli matut nga daal di armal mottali li des sëlmal ba nga defoon ba sa julli gi àggagut xam nga ne bokkut ci julli kon ndollal la te jama ja ko waral kon da ngay def sujjóotu ba'da salaam wala yow da ngaa fekk farata sàngam def naa ko wala defuma ko ba nga jàpp ci li nga xoolu masalan da ngay fekk ñetti rakk laa amaale te kon bii ñeenteel la wala ñaar laa amaale te kon bii ñetteel nga jàpp ci ñaar ci la wóor ne nga ca rakk bi ngay sikk ñetteel lan ñeenteel nga jàppee ko muy ñetteel dellu ca beneen man naa am rakk bi nga jàppee ne ñetteel la ñeenteel la xoon kon fi mu ne li la wóor yow mooy wàññiwu waaye man laa wóolu ne dolli xoo te nit bu sikk dolli naam dolliwut dañ koy sant si jooru ban de salaam moo tax nit ñëpp kum ci a do si jooru ban lay si joot man ku sikk na mu féeru kënin ci tonk banaa jokkat na mu alal yaqiini ci wóolum wala juddoo nañu sujjoot ñoom ñii albaadiya sujjoot ba sojug baada ñoom ñu nag sujjoot baada salaam la ñuy sujjoot laakin li fi mu ne waaye nag xad ya diinu biret na amaana bu biree naqasun wàññi bi koy ti sooratin ci faat ak saar kon kal qabli nañu sujjoot sujjootu qabla li am banaw ngi rek jokk seen ci fi'lihim ci seeni jëf wal qawla ak seeni wax mu ne léeg-léeg nag nga gis ci nii ku xam ne dafa boole wàññi ak dolli ndax dafa bàyyi ponk rakk bu fasu jaar fa mu war a def albinaa fi'lan wa qawlan su boobaa na day def sujoodu qabla salaam saa suñ gisee ne saar faat na ko ak taaye wala saar rek faat na ko so xamee ne saar ak taaye faatuñu ko nag kooku moom day def sujoodu ba'da salaam moo di tey da ngay julli rakk sa ñaar rakk yi njëkk yi moo yàqu te da nga ko yéex a fàttaleku foofu moom dolli dana am waaye doo mën a mucc ci wàññi ndax faaw saar ak saaya danañ faat wala saar rek dana faat kon da nga def sujoodu qabla salaam ndax nit bu boole wàññi ak dolli day def sujoodu salaam te da julli sa bu njëkk mooy yàqu ndax da nga cee bàyyi rukon waaye seetlu waroo ko fekk jàngal nga ko Fatiha ak saar bi rakk bu paree nga dellu indi rakk bu ñaareel jàngal ko Fatiha ak saar bi mu nga jàpp ne nga ñaar rakk nga teg taaya indilaat ko bu ñetteel jàngal ko fàtte ak saar mm. mm. ba rukon ba figi wala ba eh, rakk bu pare mm. nga dem ci rakk bu ñeenteel suñ da nga indi rakk bu njëkk jàngal ko fatiha ak saar rakk boobu dafa yàqu ndax bàyyi nga ci rukon masalan wala bàyyi nga ci sujjoot masalan waaye seetlu wuloo ko da nga caat teg beneen rakk defal ko fatiha ak saar ndax ñaareel la mu pare nga toog taaya depuis ci sarak bu ñetteel jàngal ko Fatiha rek mm. dal di rukkoo ndax ñetteel la pour yow mm. dem ci rakk bu ñeenteel mm. su taxaw di jàng rek foog nga seetloo yàqug bu njëkk ba te xam nga ne ay rakk jaar kon su jot boobu moom wéylee dabaatal li mooy rakk bu njëkk mun nga yàqu mun nga wëcc soo ko wëccee nag duut ne da nga koy fay waaye ba nga jàppee woon bu ñaareel mooy jël barabam tey mooy benneel bi nga jàppee woon bu ñetteel te nga bi nga génnee mooy jël barabam mooy ñaareel bi nga nekk ni jàppee woon ko bu ñeenteel moom ngay jàppee muy bu ñetteel su paree da nga indiwaat beneen rakk booy jàppee bu ñeenteel nga tawee sëlmal jël nga julli nga juróomi rakk loolu julli dana ko dem atam kon dolli nga juróomi rakk yoo xam ne ñett yi fatiha rek la ñu am ñaari fatiha ak saar léegi nag dafa am bu wërut mu ne ñeent yu wër ñeent yi wér yi ñett yi fatiha lañ